boo xam ñu ngi ciy jublu xew-xew boobu di xew xewu àdduna bi yëpp du doon mewaan dong waaye ñëpp ñoo ko bokk li ko waral nag moo di da doon tant goo xamante ni initiative bi mu ngi jóge ci sëñ Modou Dia mi toog mu ciy woo ñëpp nag bàyyiwul kenn murit xaarit tijaan laayeen ñëpp kenn ku ci nekk ak foo man di nekk sëñ Modou woo na la ci bisam bu rëy boobu ndax bu ngeen déggee ni nga xamante moom la émission bi tàmbalee dañuy jëkk a jàng alxuraan teg ci sikkirullaahi loolu lépp nag ngir yàlla ak jëmal bis bi lay doon mu nekk bis bu rëy fii ci meewaan képp koo xamante ni yaa ngi wax ashadu an la ilaha illallah muhammadu rasulullahi rek sëñ Modou Dia mii toog woo na la ci bis boobu bis ba nag la muy rëy rëy ñu ngi ko dara jaleel ki nga xamante ni mooy sëñ amarin Ndaak Seck ndax sëñ Modou ki nga xamante ni moo initié euh, euh, li nga xam mooy cant gi di gàmmu daal moo di xaajaliwul kenn dafa woo ñëpp bàyyiwul kenn tarix yëpp la woo loolu nag kañ lay am le 5 octobre fii ci Mewane lay amee ki koy jàng nag moo di a ah, waa ñi nga xamante ni ñoo amee affaire sikirulahi ñu tuddee dek nag bis boobu ki nga xamante ni mooy sëñ Modou Thiam Modou Thiam Ndiaye nag nit koo xamante ci biir Mewane la nekk juddoo fi am fi ay baax nekk fi di fi jëriñi di di fi jëriñ doomu aadama yi kon nag buñ demee ci lu mel noonu sëñ Modou Dieye jël lu toll noonu teg ko ci moom xalaat ci ay xalaat yu rafet yaakaar naan loolu lu war a rafetul la kon tey ñu ngi ciy woo ñëpp murit xaari tijaan laayeen ñëpp kenn ku ci nekk am nga ci wàll moo tax sëñ Modou tey jël bis bi woo ci waa Mewane yëpp ñu war ci kenn ku ci nekk am na ci kàddu kenn ku ci nekk am na ci lu nga xam lu mu ciy xalaat la kenn ku ci nekk am na ci xalaat yu rafet kon sëñ wax dëgg yàlla wàcc nga ñuy ñaan yàlla nag yàlla àggal nañ ci bis boobu kenn ku ci nekk bu booba nga sañse rafet mel na nga war a mel teew ci bis ba ñu bokk àndandoo guddi ga ba set allahumma salli wa sallim yaa jamaa al muslimin wal yaa taaliba Cheikh Ahmad Bamba wa maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi nuyu waa Sénégal gi yëpp di nuyu waa àdduna bi yëpp di leen xamal nag di leen yégal tamit xew-xew bi nga xam ne mooy am ci meewaan le cinq octobre di cant Serigne Cheikh ga gi nga xam te ni dañ koy boole ak cant Serigne Saliou Mbacke te sabab bi bàyyi ko ci Serigne Fallou ñuy wax ni képp koo xam te nii xam nga sëriñ Cheikh wala nga wëlërante ak moom wala mu ñor la waroon la ci bis bi di ci jiital tamit waa tund meewaan gi yëpp ak waa fédération yi nga xam te nii xadduma siddixin moo leen jiite. ak waa fédération yi nga xamante ni Miftaaxul Janna moo leen jiite ñu ngi woo góor yàlla yëpp fépp Baay Faal nekk ci àdduna rek war nañ la waxuñu koo xamante ni sax maanaam da ngay ziar que Serigne Modou rek kull koo xam ne Baay Faal nga rek te nekk ci àdduna te Serigne Touba ñor la yoon Cheikh Ibrahima ñor la rek woo nañ la ci bii. ñu ngi woo góor ak jigéen mag ndaw bëgg nañ ñëpp ñëw le cinq octobre ci meewaan ñu fekk ci bis bi wasalaam. ay at sëñ bi dem dem njar bàyyi ñu fi ñu boole gàmm gi ak cant gi sëriñ Cheikh waxal boobu ci gémmiñam ni bis bu fi jógee lu ñu koy defal nañ ko def ci ñaari bis yooyu kon ñu boole cant gi ak gàmm gi ak ñaanal sëriñ Cheikh muy ñett yëpp muy wenn xeer bu mën a jëm ak ñett picc dañuy sant yàlla suñ borom dañuy julli ci yonent bi di gàmmu rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye di ñaanal sëriñ Cheikh kon ñu ngi ci woo bokk jullit yi bokki taalibe yi kilifa y diine yi kilifa aada yi di sàkku képp ku dégg suñu kàddu xam ne lii mooy sa carte invitation ndax carte invitation matalul fépp waaye kenn ku ci nekk jox nañ la sunu carte xol ci woote bi nga xam ni kër gi nga xamante ni dafa ne ci Mewane te Serigne Fallou Mbacke waxoon ci waxam ji waxoon ne ku aajoom na faju doo fi dugg ñu ngi sàkk bis boobu ci barkeb Serigne fallu képp képp ku fi teew rek yàlla faj sa aajo képp sa ndax Mewane yàgg na fi waaye sëriñ Fallou Mbakke jox ndigal sëriñ Morja mu ñëw fii ci kër gi ci dëkk bi am fi kër gi waa mi naan ànd ak moom ànd ak sëriñ Cheikh Dia ba ñun ñëpp ñu sëñ bi meññ ñi fi ñu ngi soññee sëriñ Morja gi ak rakk sëriñ mu dem sëy yi di soññee tamit njabootu sëriñ Morja gi di ko teg loxo sëriñ Moustapha ak ay rakam ndax sëriñ Cheikh ku jëwoon ki dëkkandoom la waaye ku jëwoon ak i bokkam la kon ñu ngi ñu ngi ziar sëriñ Moustapha suñu sëriñ ak i rakkam yëpp deen woo di fàtte tamit suñu suñu suñu njabootu bopp gi suñu rakk yi ak suñu taalibe yi bis bi nga xam amuñ lu moom ñu ngi ci woo ñëpp ak bokki juri yi nga xam te ne dañoo séq réew mi muy murit di tijaan di xaadir di laayeen ñu ngi ñu ngi leen woo ñëpp ndax yàlla dogal na kër gi ñëpp la amante jàmm boo demee Tiwaawan fekk ñu fa boo demee Njaasaan xam ne fa lañ dëkk boo demee Yoof muy noonu ren di ñu duppee ko ma amal ndaak sekk ca cene ba te yaakaar naa ne kuy teew si jaay gis aada sek ak njaboot gi xam ne ñoom itam bañ ko xalifa bi da kontaan bëcc ci wax ne da ci yebal njaboot kon nag bis boobu ñu ngi ci woo ñëpp di ñaanal ki nga xam te ne moo la ko tuddee muy sëñ Modou Thiam Ndiaye Modou Ndiaye mooy taalib bi sëriñ Cheikh jëkkam ci Mewane ndax moom la sëriñ Cheikh jëkk a jàng alxuraan fii ci Mewane kon ñu ngi wax mboolem ku fi mos a jaar ci dongo jaar ci loxob sëriñ Cheikh mu jàngal la wala nga jaar fi mu tarbiye la foo mën a ci àdduna bi te gis suñu kaddu na nga xam ni ñu ngi lay woo ci bis boobu ci lii la Serigne Cheikh defaloon képp ku Serigne Cheikh mu a dimbali wala mu mos laa xettali wala nga mos a jàq ñëw ci moom mu dimbali la ñu ngi lay woo ci bis boobu ci ndimbal loolu ndax ku xam Serigne Cheikh xam daraan faj aajo jaam ñi biir ak biti kon nag loolee yërmande jooju amoon taw feex jooju amoon ñu ngi ñaan ci suñu borom yàlla yàlla fayal ñu ko fa mu nekk ki dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye képp ku mu ko mës a jëflante nag na nga am war ma am kóllëre fàttaliku di xam ni yaa koy fekki nga bisam bii nag boo mënta tey foo nga ñaanal ko ñu ngi sàkk ci daara yi alxuraan yi fu waay nekk ñu wax ci ay kaamil julli ci yonent bi jàng alxuraan eh, defal ko addee Serigne Cheikh Dia ak mboolem juddu yi ne ci biir yëpp ñu ngi ziare suñu imam ratib dëkk bi imam Malick ak imam Baye Moussa Mbaye ak Baye Adama ñu fi teg ñu fi ci bis bi di fàttali ni la cinq la te ak la ak ñaan la ak cant la kon képp ku teew yàlla yàlla fa saajo ñu ngi ziare ñëpp da balu ñëpp àq yàlla yàlla boole jéggal ci dara yent bi sallallahu alayhi wasallam képp ku teew ci yàlla yàlla dimbali la sutural la ci barke yent bi ñu ngi jéggalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh